asalaamualeykum asalaamualeykum wa rahmatullah euh, man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences euh, dañoo bëggoon del si rekk ndax kat réew mi noo ko bokk euh, foog nuy waxtaan tey wax dëgg te waxtaan wuy waxtaan it nu jaare ko ci xam-xam maanaam la science bam doon loo xam ne euh, communication yi neex a jàlle te lépp doon dëgg lii nga xam ne moo xew ci maire yi du dëgg du yoon Macky sal boo yorelee mairie bi xaalis génne ko nga joxe ko ay sénégalais ñoo ci nekk liggéeyal seen dëkk nga war leen a fay Macky sàll génneel xaalis bi nga fay ko dama ne li sax njaboot yor la famille Faye Sall waxuma la mairie yi nekk Ndakaaru waaye daanaka mairie nekk Sénégal buñ ko paacoo woon kenn ku ne jot sab saleer te kat alal ji moomoo ko alal réew mi la ñu dénk la ko nga paacoo ko yaa ak say bokk paacoo ko ak say xarit paacoo ko ak ña nga xam ne amulul njariñ réew mi amul njariñ réew mi muy tubaab yi Macky dama bëgg nga delsi ak ci sa xel xoolaat nattaat sa bopp xoolaat càmbar sa bopp dellu xool ni ngay doxale ak coono bi nga xam teg nga ko réew mi Macky maire yi jox leen seen xaalis jox leen seen xaalis démb rek maa ngi dal ci kaw maire yi nga xam ne leen a fal euh, dëkk bépp toogoon am yaakaar ci ñoom te yaakaar bi jóg gisuñu ko ndax ana ko waral sa loxo nga rocc bàyyi leen nu taxaw te mënuñoo yëngu Macky Sall mairie bi delloo leen seeni xaalis grève yi baaxut non seulement dëkk bi salte gën a salte lay def mais kayit d'urgence yi nga xam ne soxla nañ ko lu mel ni extrait duñ ca jot xale yi dooru juddit ñu war leen déclarer kenn du ko def ngir lan Macky Sall mu téye alal yi maire yi tëdd ci loolu moo ko waral léegi laa jóge maire yi dem naa fa seeti nañ tooge mais ñoom nee nañ bu subaa dañ ko cay dool delloo buñ ko cay delloo ëllëg Macky fu jëm te danaa leen xamal lenn yéen maire yi am ngeen occasion bu mag a mag pour jële fi Macky sàll parce que lii du ay parti politique lii du ay mouvement lii du ay syndicat c'est la municipalité c'est la mairie te mairie bu jógee jógee taxaw assemblée nationale day yëngatu day yëngu marché bi daanam du marché étudiant déedéet du syndicat marche yi ak manifestation du kun tëj libéré Cheikh Omar marche bii bii nga xam ne tey bu fekkoonte ne waa mairie xam na ni ma ko xamee Macky Sall ab diir mu jëli bagaasam dem yéen yéenay commune bi yéen yéen yor état civil bi yéen yéen yor dëkk bi yéenay monsieur le maire dama ne association des maire pour la première fois ci histoire du Sénégal bu ñu jógee taxaw manifeste manifestation bi nga xam ne am na te makki lànk bañ a fay salaire dama ñoom buñ jógee buñ jógee Macky daw xaju leen ci Macky Sall xaju leen ci moom te lii ma leen di wax bu ngeen yëngalee teg ko ci discipline yëngal teg ko ci kóllëre yëngal teg ko ci dëkk yëngal nag te bañ a warante yéen maire yi ngeen ànd yéen ngeen ànd député ci yéen si ginnaaw lay topp te li wér wóor mooy Macky Sall def li ngeen wax mooy li koy arrangé te Macky amul droit nag ngalab réew mi ba lu soxla ci moom dañoo war a génn di ko manifester manifestation yi ak Macky dégage yooyu dafa war a dakk dafa war a dakk na Macky def liñ ko sant bu ko mënut yéen maire yi ak maire yi man ngeen a génne askan wi lii du ay parti politique mais ay commune ñooy jóg te commune buñ jógee ki bokk Pastef da cay bokk ki bokk APR da cay bokk ki nga xam ne syndicat la bokk da cee bokk ki élève bi da cay bokk képp ku dëkk ci commune bi ci nga bokk kon yéen li ngeen mën a dajale ci ay nit li ngeen mën dajale ci ay nit songandoo Macky Sall amul benn benn parti politique bu ko man amul benn mouvement bu ko man amul kenn ku ko man dama ne Ousmane Sonko sax mënu ko ndax commune Ousmane Sonko da ciy bokk Ousmane bokk ca yeneen commune yi bokk ñeneen bokk ca jóg leen ngeen sagal réew mi jóg leen ngeen sagal réew mi dii leen ko nangu yéen maire coono Macky Sall bi damaa bëgg mu dakk te ana ko dakkal yéen maire yi man ngeen ko dama ne benn manifestation commune commune yépp dajaloo ci waxoondoo Macky Sall benn yoon maire jiitu yor seeni gouverneur ne ci kanam dama ne police du leen téye du leen laal te Macky Sall lu xëy daw dana ko def te bu ngeen ko songee fekk ko présidence jombul bu ngeen ne tey lañ koy def day tukki dama ne jóg leen ngeen lijjanti seen bopp xale yi ak mag ñi ba ci gone yi hôpitaux yi amul fenn foo xam ne si nit nekk na fa ne ci jàmm te yéen maire yi bu ngeen toogee seetaan bu ngeen di ko rëccu. d'abord fal gi ñu leen fal du am njariñ ndax yoru leen ni Diop si def du yoon du dëgg du yoon bu doon Amérique daañu ko entendre ne ko xaalis bii nga def ci mairie bi foo ko jëlee dem ARS xool ba xam Diop si mii fay na impôt war a fay taxi bala ngaa tabaxi route ka tàpp tàppal nga dem fay trésor public bu doon Amérique Diop si lu dem lii Ousmane Sonko def it bu doon Amérique du continuer non. yow mair bi nit ñi nga war leen dimbali nit ñi nga war leen taxaw nit ñi war ñu ko jëlee dimbali loolu la de boo bëggee bale dëkk bi da ngay woote ne monsieur le mair mooy woote yéen waa dëkk bi yéen di yi patriote génn di bale dëkk bi kooku américain du la ko defal kenn yow lañ fal yaay maire bi def ko Macky Sall war dina ko def yow nga def li nga war a def boo ñu defar dëkk bi mais nii ngeen ko bëgg a tëll nii ngeen ko bëgg a doxale dama du dem kër du dem kër Macky Sall libéral xaalis bi mairie dim liggéeyi te mairie amuñu xaalis fokk fokk fokk ay bénévolat am ci yéen ñi dëkk ci commune bi ngeen jóg ànd ak maire bi bu leen soxlaa ngeen jóg taxaw comme na ko Ousmane sonk defee woon opération bi ko Ousmane Sonko defee opération national la war a doon opération national Casamance nag bokkut ak Sénégal bokkut ak yéen mairie Sénégal yi bokkut Casamance bokkuñu ko région Sénégal yi bokkuñu Casaase yi dañoo gëm seen bopp Casaase yi dañuy ay sénégalais yoo xam ne xam ne liñ bëgg doon ay patriote Casaase yi bu nekkee dakaar Dakar Ousmane ko soxla di bale mairie ba ay car dañuy déparé dakaar dem Casamance loolu Thiès xalaatu ko un jeune Thiessois un jeune soit kooku xalaatu maire bi ne kaay bale bi bu génn xamuñ sax nu koy defee comme nit ñi bokkut nit ñi bokkut jikko yi bokkut. li ñuy xalaate bokkut Macky Sall amee leen xaalis dama di jóg leen ngeen nangu xaalis boobu bu ngeen mën a jëlaat réew jël leen ko nag Macky def fi dara kon maa ngi leen di ziara di jéggalu bu baax a baax di soññ maire yi bu leen tàggoo association des maires du Sénégal nañ jóg grève bi baaxul grève bi di wàññi dara Macky Sall Macky faaliwul koy grève Macky grève ak manifestation la yem yemale yii ngeen def yemalu ko fenn faalewu leen faalewu leen yéen maire yi génne leen ngeen génne peuple bi man ngeen ko parce que c'est la commune bu ngeen àndee génn ngeen àndee génn maa xi leen waxet daw wala mu def li ngeen bëgg kon maa ngi ziar bu baax te ñaan jàmm yàlla na buur yàlla sutural te indi jàmm ci réew mi yàlla Macky Sall jëri bagaasam ànd ak armée française ak ñi nga xam ne ay mafia lañ nekk fi doon ni impérialiste yàlla génne leen ci réew mi te bakkan du asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveillé des consciences